Euh, l'école gi ba tax na mun nañu am jafe-jafe jàngalekat euh, ndax boo xoolee ci euh, diwaanu Matam ak Sédhiou ak yeneen gox yi am na lu toll ci ñaari téeméeri jàngalekat yoo xamante ne soxla nañ ko ci jamono ji te dara yëmbagu ca mu ngi ci yéen kaabidi Walf Quotidien yenn kaabidi Source A xëy duñu dégtal lu waaju ci Abdoulaye Mame Abdoulaye Daouda Diallo mi xam le ne nangul na Amadou Ba mu doon candidat mu topp ci ginnaawam waaye nag ba léegi daanaka waxagul jëm ci turu Amadou Ba mu mu nang mu mu nangut euh, addu ci discours am mu ngi ci yéen a kii di euh, source a yéen di turbine mu ngi ñuy dégtal lu aju ci Amadou Ba mi nga xamante ne def na lu tollook euh, at ca primature yéen a buñ ko doon xayma daanaka def cee laaj ndax ba tey jafe-jafe yaa ngi ne kët jon ndaw ñi jaaxle ba ña ngay jël gaalu loo cooy mbënd maa ngi ne kët jon ba ci seeraayu dundu geek yeneen ak yeneen yéen lañ ko sason moom Amadou Ba daanaka. daanaka euh, deful xaaj wa mu ngi ci yéen a bi di euh, turbine euh, mu ngi ñu koy dégtal ci xëtam bu njëkk waaye Askan Wi jaay ñaawlu itamit li nga xamante ne nguurug Macky Sall jaay doole gamu nekke xañ ku jeeg politique bi ñu amal seen tendefalu ñaxtu wala sen yeneen ak yeneen mu ngi ci yéen a bi di turbine yéen a bi di Sud Quotidien xëy di ñu dégtal lu waaju ci candidature njiitu réew mi candidature Amadou Ba bu Benno tey ji Abdoulaye Daouda Sonko eh, weer na ngànnaaya ci suuf eh, ñaxtootul eh, nangu na ànd ak Amadou Ba ngir benno am ndam ci yile woote bokk na ci di des mooy Aly Ngouille Ndiaye ak Boun Abdallah Dionne Mame Boye Diao mun ko fekk si ngir benno am doole ci yooyu la élection présidentielle yéen kabi di antenne quotidien mu ngi ñuy dégtal joxante nañu loxo diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo weekend gi njiitu réew mi Macky Sall dox na ci tànk yéen cabinet njiital CSE moom moom euh, maire bu bokk euh, be moom nangu na ànd ak euh, njiitu réew Macky Sall ànd ci fu Amadou Ba ngir dooleel coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi ci yéen a di antenne quotidien yéen a di le peuple quotidien mu ngi ñuy dégtal Abdoulaye Daouda Diallo wuyu na wooteeb njiitu réew mi Macky Sall mi doon sàkku ngir mu bootu ci Amadou Ba jëfee na ko moom Abdoulaye Daouda Diallo yéen a xëy waxtaan ak Mamadou Lamine Massali mi xam ne seen candidat di Amadou Ba te itamit jaay daañu ci seen bakkan ba mu doon euh, président ci élection présidentielle yu 2024 Euh, bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Lamine euh, Massaly yéen kaabi di l'info xëy duñu dégtal euh, namu taxawoo Amadou Ba mi mu ne moom la fas yéene jàppale doon lu retaan lu moom la yéen kaabi di l'info xëye di ñu dégtal Abdoulaye Daouda Diallo mi wax ba jeexal te tuddul tuddul turu Amadou Ba yéen cabinet lu mat a xool la lu mat a càmbar la nam ca doxale moom Abdoulaye Daouda Diallo yéen cabinet di las mu ñuy dégtal état major bi daanaka nangul nañu njiitu réew mi Macky Sall état major bu APR nangul nañu njiit réew mi euh, Macky Sall jëm ci euh, tànneef ga mu def ci Amadou Ba ndax ñu bari ñu jotoon euh, daanaka ñaxtook beddeeku tàmbale nañu yegg si ku demee ni Abdoulaye Daouda Diallo mu ngi ci yéen a bi révélation di yéen a bu bees di ñu dégtal ñi nga xamante ne mooy élection présidentielle yeeg parrainage beeg ña ca war a doon favori outsider yeeg tokaar yi yéen a ñu ko dégtal diggante Khalifa Sall ak eh, Karim Wade Idrissa Seck eh, ba ci eh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba Ousmane Sonko mu ngi ci yéen kabi di révélation yéen kabi di réew mi quotidien Abdoula Abdourahmane Diouf moom la xëy waxtaanal dikkaat na xam ne ne daal bu doonoon togg la mu togg ñor na programme am daanaka yemb na ci jamono ji ngir mu dagaan baatu askan wi pare na ngir euh, waxtaan ak askan wi ca la mu euh, bëgg a jëmmal ci Sénégal yéen a kii di Dakar Times xëy di ñu dégtal Malick Gakou njiital Grand partie ak i tamit. li nga xamante ne mooy candidature am ne waxtu wa yegg yegg si na mu nara doon kuy dagaan baatu askan wi eh, ci élection yi leen ngir doon président 2024 yéen a kaabi di 24 heures ne Bougane Gueye Dany bëgg na koo doon ma ngay waxtaan ak wa njiital eh, coalition Bougane Gueye Dany Bougane eh, gëm sa bopp 2024 Bougane mu ngi ñuy xaymal bilan bu Benno Bokk Yaakaar ak la mu gis ne Benno def cee laaj boobu léegi ba tax na askan wi amatuñu yaakaar ci njiitu réew Macky Sall ak ay ñoñam yenn kabi di la mandat dañu dektal ne Dakar pare nañu ngir jàppale Abdoulaye Sylla njiital ECOTRA ngir mu doon euh, candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm communauté Fulbe ñoo ko xamle ci bëccëgu sargal euh, gañ ko doon amalal niki samedi ji ca CICES le mandat di ñu waxtaan ak euh, di Gassama mi jiite Amnesty International xamle ne daal ci nguurug jaay doole lañ ne ci jamono ji ndax askan wi munatuñoo am sañ-sañu amal seen dajeek ñaxtu njiitu réew mi Macky Sall salfaañe na démocratie bu euh, Sénégal te loolee duñ ko seetaan bu ñu sukkandikoo ci Seydi Gassama yéen kabidi yor yor gi xëy ñu dektal assemblée générale euh, ca Nations Unies njiitu réew Macky moom danaka Euh, hôtel gamu jotoon na réservé def ko faf euh, du moyu ndax euh, sénégalais ya fa doon nekk di ñaxtu ñawlu ni njiit réew Macky di doxalee ci mim réew di Sénégal ba ci tëjum kaso Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen yéen ki abi di Le Soleil xëy waxtaan ak keneen di jëwriñ gi ñu dénk wàllub yoon Ismaïla Madior Fall wax na lu bëree bari Eh, ci lu ñeel candidature benn Bokk Yaakaar tànneef ga doon Amadou Ba dossier ji Sara Ousmane Sonko eh, wax na ca wax na ci tamit li nga xamante mooy conseil supérieur de la magistrature eh, joxe na ci xalaatam yéen kaay bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk yéen kaay geneen l'évidence mu ngi ñuy dégtal taxaw gamu ne taxaw na ko bërëbu fajukaay gi nga xamante mooy Goudomp Souleymane Ndiaye yéen kaay bi moo ñu ko yeggee jox leen groupe électrogène yéen kaay bi di stade ne ma ngay joxe mënina ndam ci wàllu football eh, foofee ca Arabie Saoudite eh, Sadio Mané ma ngay dugal ay but eh, daanaka ci jamono ji moom la ñuy waxtaane ca championnat bu Arabie Saoudite moom doomu Bambali yéene kaa bi suñu lamb xëy duñu degtal Modou Lo Ama Balde seen jàkkaarloo ci Gambie yéene kaa bi ne face to face ba tàng taroon na lool daanaka Modou Lo ne daal pare na ngir itamit daan Ama Balde Ama ne déet du ko euh, seetaan ci lindimel pare na daal ngir jaayante euh, ci googule euh, combat mu ngi ci suñu lamb Gambie moo akkoon ci mborop Sénégal fan yi ñu weesu